ça incha allah rabbi léegi nga tàggoog moom bu soobee yàlla waaw incha allah léegi ma dellusiwaat si lem tuuti parce que lem moom xam naa ni mënuñoo jeexal sax li muy saafara yëpp mais dinaa wax si bu fekkee ku am fièvre la muy yaram wi tàng ak yooyu maanaam nga boole kuddu nga jël kuddu lem boole ko def ko si kaasu limon maanaam kaasu yi ñuy dëkkee di ko naan incha allah rabbi kooku dafay wàcce tàngoor yaram boobu waaw waxoon naa ni aussi anginite maanaam lem da koy faj mais day ànd ak limon angine waaw anémie maanaam koo xam ne dafa manqué deret nay jël ñaari kuddu lem suba ak ngoon bu dee ko bëgg a wàññeeku aussi borom yaram yi nañuy jël ñaari kuddu lem aussi saa yu ñu lekkee ba noppi bala ñuy lekk bala ngay ndékki bala ngay ak bala ngay reer ñetti ku ñaari kuddu nu mu tëddee si lem boobu bu dee asthme la aussi ñu am asthme maanaam benn kuddu lem ngay jël le matin à jeune bala ngay lekk dara mais da ngay toog après une heure de temps soo ko lekk day faj asthme bu dee ñi nga xam ne jigéen ñi nag am yaa ngi bëgg wàllu taar ak yooyu seen yaram di rafet fu ñu toll da ngay jël maanaam lem. nga boole koog jaune d'œuf maanaam nen bi loolu si mboq moom nga koy booleel diw ko si sa yaram boo ko diwee nga xaar quelques minutes nga dem sangu ji kooku dinay defar yaram dinay rafetal yaram waaw loolu naa ne woon naa ko doon docteur maman ba mos na ko fi wax docteur maman ba waaye man maman ba la dem docteur maman ba la mos na mos na ma ko fi wax mos naa ko fi dégg waaw waaw waaye li ma lay wax dafa am lu may laaj parce que xam nga dafa am lu may wax loo xam te nit ñi loo leen di wax day leer dëgg la mooy ci affaire u jabet bi sànq dégg naa mu wax persi def naa waaw persi ak laaj waaw léegi nag laaj xam nga laaj bu doomu laaj bi dafa am ay trans waaw yow trans yi nga wax wala juróom-ñaari doomi doomi laaj bi non doom yi boo tasee kii boobu gus gus boobu laaj man dama bëgg laaj voilà da ngay tas yaakaar na nga jënd laaj bi ne ñu ma jënd jënd ci juróom-ñaari laaj non non non day metti boo tasee loolu ñu naan gus waaw kay da nga koy tas loolu am ay doom doom yooyu ngay jël juróom jël si juróom ñaar waaw juróom juróom waaw jël si persi bi sa loxo ba mu fees nga boole leen dëbb ko ba mokk nga def ko si litre ndox man nag xam nga su ma fi naroon jógee tey su ma demee damay dem rek waxaale saaku genn wala saaku laaj non ma taal benn kii bi moom la ñuy wax doom bële du doom kii voilà gus bi la quoi gus bi rek laa bëggoon jël juróom ñaari gus baa noonu boole dëbb waaye yàqul dara laaj moom yàqul dara laaj loo ko laaj mu jox la ba léegi bu dee ñi am problème xol xol moom bu mu si mën a doon muy buy metti baag buy am palpitation baag bu mu mën a doon si mbirum xol rek jëlal benn kuddu lem nga def ko si kaasu ndox bu tàng jël genn kaasu attaaya maanaam ba mu fees si ndoxum limon def sa yëngal naan fu mu fekk mititu xol wala lu mu mën doon da koy da koy saafara si kàttan borom bamtuwaat ko maanaam da ngay jël benn kuddu kuddu bi ñuy lekk kuddu bu mag bi si lem def ko si kaasu verre boo xamante ni ba mu digg ak ndox mu tàng nga complété kaas bi maanaam nga dolli si benn ndoxum limon lu natt lu toll kaasu attaaya kooku moom fu mu fekk problème xol da koy saafara si kàttan borom waaw xam naa it docteur ba bisimilah am na ku nekk ci ligne bi.
allo allo.
asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah.
dunia waaw waaw. la mu doon laaj pour baaxee ma la. maanaam feebaru fissure anal.
structure.
fissure anal.
fissure.
waaw anal.
fissure anal.
waaw mënoo ko faram-fàcce ci olof wala.
maanaam. genre jàngoroy kajoor la mais ci biir la nekk quoi.
waaw ci biir la nekk.
waaw kooku kooku li ngay wut mooy. reenu dànk ngay wut. bu dee reenu dànk da nga siy jël ñaar.
ñaar wëteen bët bi nga jël si ñaar.
wëteen bët mooy maanaam.
wëteen bët ay ay reen la rek reen la boo ko gisee dafay mel ni dafay nooy daal dafay xaw a nooy tuuti mu xaw a mel ni xàncum guy mais bokkul. boo demee si ñi jaay reen rek boo leen ko waxee wëteen bët nañ la ko woon.
wëteen bët ñaar.
waaw ñaar. nga wut si nu mu tuddati nu ñu koy waxeeti reenu silaan. ñetti reen. boole leen. def xooj ko si litre ndox ak genn wàll. saa yoo lekkee ba noppi rek naan si kaas. incha boo ko defee semaine bu soobee li nga tàggoog moom. incha allah rabbi allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah.
Fapal la rajo Julia. yow Bawi.
yaay kaay wala yaay gaaw ñëw.
waaw xam naa bu ñu demee si kanam tuuti.
waaw ñu bàyyi la nga baaxee ñu ànd tànnaaw waaw léegi si wàllu empoisonnement. koo xamante ni maanaam dañ ko posene wala mu lekk posente yëgu ko daal yu mel noonu. maanaam lem dina ko faj.
allo allo waaw.
si fan la rajo Dunia.
rajo Dunia waaw.
waaw as asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatulah.
damay laajte. man daal sama yaram bi day diis gann gann gann day diis waaw day diis benn tànku ndeyjoor bi waaw ak loxo ndeyjoor bi day jékki-jékki rek diis duma ko sax mën a yëkkati yaram bi yëpp ànd daal di di diis waaw mu jaaxal ma lool ma ne woon ma laaj waaw c'est-à-dire que xam naa ne loolu waaw xam naa ne mën na nekk arthrose waaw comme mën na laal si rhumatisme wala cité yu mel noonu waaw comme it mën na laal si leneen loo xamante ne xëy na du lu ñuy mën a wax nii waaw mais lu mu si mën a doon daal bu dee si arthrose wala kii da nga man da man dama demoon dispensaire daal Lu ñu la wax ñoom xawma rhumatisme ah ah rhumatisme xam nga dama mënul wax ci waaw français waaw waaw moog arthrose ñoo bokk waaw ndax dama daan ti bu bu ma tàngee Uh-huh.
dama daan lal di tëdd ci tapis bi waaw te tëdd tappi boobu daal ci laa jëlee.
baaxul baaxul même di dox si perron nii sax wala nga teg sa sa tànk si perron te soloy daal baaxul.
te ñun ay karo la ñu yor sax man damaa ragal voilà surtout sedd non non non baaxul day joxe rhumatisme.
loolu daal moo ma jàpp ci loxo.
léegi daal kooku dinaa la tegtal ñaari reen yoo xamante ni.
waaw muy reen wala kuur.
waaw.
xasum óol.
waaw déglu leen ma foofu yow.
voilà xasum óol ak reen wala kuur.
loolu reenu.
wala kuur.
wala fuur.
wala kuur wala kuur.
waaw.
waaw ak.
wala kuur.
voilà wala puur.
kuur kuur.
waaw.
boo ko booleeg xasum óol.
waaw.
ak reenub dànk.
waaw.
nga xooj ko di ko naan.
waaw dina ko saafara.
waaw incha allah boo ko essayé kiwul.
xasum óol waaw.
waaw.
incha allah boo ñëwee nañ la baaxee leneen mais loolu daal ala kulli alin.
waaw dinay faj arthrose dinay faj rhumatisme.
waaw incha allah baax na jërëjëf jërëjëf waay.
jërëjëf waaw.
ah.
ma àggale si wàllu.
am na ku nekk si ligne bi.
allo waaw.
Samb.
waaw waaw.
Sëriñ Ablaye Pouy Mbaw.
ah puy puy.
sa xarit puy jàmm rek puy.
Sëriñ Ndiaye.
bàyyi fu ñu ngi lay rafetlu.
Sëriñ Ndiaye.
ñu ngi rafetlu intervention.
ñu ngi nuyu ñi si rajo bi yëpp.
waaw ñu ngi lay sant bu baax.
di nuyu itam ñi leen di déglu.
alhamdulilah.
te it may leen xel.
jërëjëf.
Eh, di yëgal nit ñi rek ne leen.
Mhm, yow publicité wu la.
mhm, publicité taxul a jóg.
mhm, te nga xam.
mhm, yàlla boole ñu.
mhm, eh, ak ñi xam.
mhm, eh, ñi xamul rek ñoo sonal.
mhm, ñi xamul te bëgg a xam.
mhm, loolu dëgg la.
su ko defee nag ñu may la xel.
Mhm, te di la déglu.
mhm, mais itam koo si digal.
mhm, mu defee ko comme na nga ko ko waxee.
effectivement.
bu mu xër Mhm, ba mu ëpp.
mhm, mais itam bu mu nay ba mu yées.
loolu dëgg la.
su ko defee parce que lu tax mooy.
Mhm, kuñ fi jox ordonnance boo demee fële ngay wax pharmacie.
mhm, day gay kaa jël xale bi. doo da ngay te di gis ne.
waaw eh, duñ la wàññil ñaar fukki.
loolu dëgg la.
kon su fekkee dañu gëstu ñun ba xam.
Mhm, dellu ginnaaw di jekki-jekki di maye.
mhm, bés bu ñuy maye ñi ñu koy maye bu ñu paree.
mhm, def ko xam-xam boo xam ne seen doom mën na ko doon.
mhm, seen sët mën na ko doon.
mhm, eh, mu nekk xam-xamu biir kër.
loolu dëgg la.
te ka la xamal loola te xamoo ko woon. demal Mm.
kaa jël ma kii gaaw.
Mhm, ku la xamal loola te xamoo ko woon.
loolu dëgg la.
war nga sant yàlla.
Mhm, di ko sant.
effectivement loolu dëgg la.
te ñëpp nag nañ la jàngal ku nekk Fatiha.
Mhm, ak salaatu bu waay man mhm, teg si fàllaxe ak naas yi mhm, ñaan yàlla mu gën la musal mhm, te jërëjëf.
it Dalbas Diagne yàlla defal ko jàmm amin amin Pouy.
defal ko personnel bi yépp nag jërëjëf Pouy.
ndax nag jël sa alal Mhm, liggéey si lu ay doom aadama di jële seen ñaq Mhm.
di ko si sutti Mhm.
di si jële njariñ di ko yóbbu si seen i kër mhm, suñu lekkee bu rootee picc yi force yi Mhm.
melantaan yi force yi Mhm.
tubarkalla Mhm.
te it doomu aadama yi wératuñu wératuñu.
kon ki nga xam ne dem na ba am xam-xam Mhm, jël xam-xam bi def ko addiya rasulilaay mhm, di ko joxe ndax jullit nga Mhm, kon sant yàlla mhm.
si ku ko jël ku nekk mu ñaanal la nga yàgg fi mhm, te jërëjëf.
maa ngi lay ñaanal bu baax jërëjëf Pouy maa di ngi lay la fay.
encouragé maa ngi lay fay.
ndax ñun amul duñu duñu publicité mukk dëgg te loolu ku nekk dëgg rek am na ñu nu yaakaar duñu seet Mhm, lu wér Eh, la.
ku mel ni yow nag Mhm, ah wax dëgg yàlla ku mel ni Petit Ndiaye ba leen di nekk stade ba Mar Diop mhm.
eh, nañ leen di encouragé te di leen ñaanal Ah, effectivement ku ngeen si dëgg la.
jox xam-xam tëb Mhm, comme laaju la xor mhm, kan ka jox mhm.
na la ñaanal yàlla effectivement loolu dëgg la.
ku si dem tam di jëndi garab Mhm, boo xam ne reen la wala sunguf mhm, te xamoo nu ñu ko war a jëndee mhm.
jëndoo ko sa tooy tooy ba muy ñas wala lëy wala neneen Mhm.
parce que garab santul lëy rek wala ñas wala nga saa mais jàngal faatixa ah, loolu dëgg la.
ak ñetti xulxu wallahu ahad Mhm, nga tufli ko sa xaalis ba loolu dëgg la.
jënd ko garab ga Mhm, bu dee sunguf bu dee reen bu dee xob Mhm.
incha allahu rabbi dina la jariñ lu dëgg la. loolu dëgg ñooñu la.
nga xam ne ñoom nga toogal si plateau bi Mhm.
ñoog personnel bi yëpp ak personnel rajo yëpp yal na yàlla defal leen jàmm amin amin.
defal nu ko si réew mi Amin, Pouy.
lii rek mooy tax réew mi avancé Ah, amin, Pouy, amin, soo Pouy.
i ñaanoon Mhm, doo gëstu ba xam ba pare mhm, téye ko mhm, am na loo xam ne xor a koy maye mhm.
mu soxla jariñ Mhm.
am na loo xam ne mën nañ ko maye loolu dëgg la.
li ñu mën a maye nag yaa ngi si kon yàlla na la yàlla jàppale amin amin jërëjëf Pouy.
Ndiaye amin Pouy, jërëjëf jërëjëf maa ngi lay gërëm jërëjëf Pouy. allo asalaamaaleykum.
allo maaleykum salaam wa rahmatulah.
ñu ngi leen di nuyu.
ñu ngi leen di ziar alhamdulilah.
barikàlla waaw man dama bëggoon laaj.
aha ci lu jëm si wàllu lem gi.
lem waaw waaw ndax bari na lool si foo ko tuddee si fu muy faj.
waaw ma doon laaj ndax xam nga lem piir am na.
waaw ak lem njogaan yi.
aha ndax lii lem piir bi man.
aha lem njogaan yi man na ko wala déet.
déedéet mënu ko de parce que léegi bari na jaaykat déet lem lool.
loolu sax bëggoon bëggoon naa see ñëw moom jërëjëf waay.
aha xam naa ni comme waxal nga ma ko sax Dëgg la.
moom vraiment def nga lépp jërëjëf.
parce que lem daal pur bi moom moom lañ xam ñun Alhamdulilah.
mooy bi génn si yàmb bi Alhamdulilah.
moom lañ naan pur bi Jërëjëf.
mais beneen bi moom dégg naa même xobu mango sax léegi diñ lañ siy defar lem ak togg suukar rek ak ay tàngaram.
suukar waaw lu ne lañ koy defaree.
voilà loolu la doy na waar daal Jërëjëf, pour ñu- ah yow moom da koy defar.
Eh, sëñ Matar nuyu naa leen.
bàyyi nga jaañ jaañ.
jërëjëf Am ziar.
jërëjëf ñu ngi rafetlu l'information waaw si 628 089 ne ko allo.
allo allo asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa Diouf rahmatulah Diouf Maa Diouf.
koy jëf.
Ma ba- Diop jàmm Diouf.
ëpp la nu ngeen def naa alhamdulilah jaañ jaañ.
Diop.
ñu ngi nuyu fàllu bu baax. di nuyu gan gi.
Mhm, ñu di ngi ko lay ziara.
fay. Mhm.
di kontaan si ay kiwam bu baax a ñu baax.
ngi lay fay bertalam. Eh, ma bëggoon ko laaj rek.
Mhm.
eh, kuy saxat te fajuloo. te saxat te xaw a takkar naa sa lool. ban garab ngay mën a jël.
waaw bu fekkee xobu senjeñ bi la Ah, da nga koy dëbb ba mu mokk xobu senjeñ.
senjeñ waaw xob bi da nga koy dëbb ba mu mook maanaam booy tëdd guddi nga tey ko si sa dënn tey ko si dënn xale la nag ku am fukki at ak benn waaw da nga koy tey si dënn bi takk ko baax na jërëjëf ñoo ko rafetlu waxtaan bi incha allah rabbi jërëjëf gërëm bu baax a baax jërëjëf ñu ngi lay ñu ngi lay fay jërëjëf asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw xam naa Ndiaye man dafa am loo xam ne si wàllu